mbégte ak bànneex la ñuy am yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp ci chen bii di Buzz 221 HD ni ñu koy defee saa rek jamono ji nag mën nañoo wax ni ki nga xam ne moom mu di njiital Pastef Ousmane Sonko ñàkkagul doole joojee nga xam ne amoon na ko ci jamono ba nga xam ne ma ngay nekk ci opposition ba la ko waral nag du leen lu dul démb li nga xam ne askanu Ross Béthio daal di nañu koy def mu di xaar xaar ki nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko waaye itam ba ay quatre di du matin loolee nag nekk loo xam ni lu ñu gëjoon a gis la ci làngu gi nga xam ne nag moom moo di langue politique gi mu mel ne nag Ousmane Sonko saa bu ne dafay wane li nga xam ne nag moom moo di dooleem waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di Sénégal yi di gën a wane ak bëgg bëgg li nga xam ne nag moom moo di projet bi moom Ousmane Sonko itam yaakaar ji nga xam ne nag ndaw ñi amoon nañ ko ci moom dafa dal di gën di yokk kon nag jamono ji ji mën na nekk ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mën naa am la mu bëgg foofee ca pencum ndawi réew ma ndax quatre heures du matin nga taxaw di xaar li nga xam ne moom moo di politicien loolee nag gëj nañu ko gis bu fekkee ni sax mos naa am ci réew mii di réewum Sénégal xanaa itam ca jamono ba nga xam ne nag ñoom ña nga faree ca opposition ba bëggoon a jot li nga xam ne moom di réew mi di réewum Sénégal nit ñi daal dañuy leen di xaar heure bu nekk waaye jamono ji ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñoo féetee ci kujje gi la ñuy xam ne moo di nee ñi nga xam ne ñoo fi nekk mu di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di Sénégal yi waaye itam ndaw ñi dañu leen a wan ginnaaw te loolee nga xam ne niki dem mu xew na foofee ci Ross Béthio firndewul wala sax dëkkalul te li nga xam ne opposition bi jamono ji ñu ngi koy wax ndax di xaar li nga xam ne moom moo di politicien ba ay quatre di du matin loolee nekk na loo xam ne lu ñu gis réewum Sénégal kon nag mën nañoo jàpp ni kii nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko la mu bëgg ca pencum ndawi réew ma mu di cent cinquante député ñenn ñi sax naan cent soixante député mën na koo daal di am ndax ba tey ndaw ñi ñi ngi wane seenu bëgg waaye itam bëgg li nga xam ne moom moo di projet bii nga xam ne kii di Ousmane Sonko ak itam Diomaye Faye di président bu Sénégal indi nañu ko ngir defar ëllëgu Sénégal.